dal leen ko jàmm ci xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak ñaar fukk ak benn doom doomi aadama ñoo dooleeku ci lim bu ko fi jot am ñeent fukk faj nañ leen tey ba ñu wër juróom-benn ñàkk nañu si seen bakkan ci communiqué bu ñu biral tey dinañu dem ca Thiès àddu rek ci mbirum belge bi nga xamante ne atam si juróom-ñett fukk ak juróom la toll moom moomee nag nga xamante ne dafa disparaître woon depuis rek fukki fan ak juróom daal nañu koy gis mu ñàkk bakkanam ñu daal di koy sax suula moom nag borom këram di ab sénégalais rek moo ko faat danañu leen ko gën a yaatalal tribunal grande instance bu Louga daal dinay rek atte mbirum rek ay euh, histoire si diggante ñaari soxna ya nga xamante ne ni ay wujju lañu ñaareel bi nag ñu ñu naan ko dee sàll moo dal di rek jël diwlin bu tàng daal di koy soodee euh, ki nga xamante ne nii rek moom mooy aawam di anjaaya ba tey rek si mbirum soxna yi danañu si àddu rek ak rek la nga xamante ne ni ay pexe ya ñuy lal ngir rek lekk xaalis si seen ñi nga xamante ne ni ñoo di seen ay dernière ñoom nag dañuy dem sa bay mbubboo woon ni dañoo warndulot wala sax diine rek dañoo avorté ngir rek seen partenaires yi rawatina sax bu ñu doonee ay borom soxna wala nit yu doon alal di leen jox rek xaalis bu takk lool la seetkat bii di Selbé Ndom daal dinay àddu rek si mbirum borom ñaari tur yi rawatina rek ña ñu mujjee jàpp ca grande mosquée bu Dakar moom nag Selbé mer ba futtu la def ci li ni mel laata rek muy xamle naka la ñu war a def borom ñaari tur ba ñu jàpp di rek la nga xamante ne ni sa ñenn ñi dañoo gis ne Selbé dafa dérapé langue politique gi danañu si pousse conseil économique social et environnemental jamono ji rek président wam bu bees bi di Idrissa sa la ñuy wër gannaaw ba ñu xamulee rek ana fan attaqué ak rek ana ci lan la nekk moom moomee di Idrissa Seck animatrice Biry Sophia gannaaw ñaari émission yam mu jot a def ak Lirou Diane ak kii di Ouzin Keita ñu ŋàññi ko si ba tax rek mu def vidéo jooy si jooy yi métti lool di jéggalu moom moomee Sophia taxul rek mu lem ay koogam ndaxte rek boppam ci beneen vidéo ba nga xamante ni nii rek uh, na woon fa woon rek la ca dal di defaat danañ leen ko gën a yaatalal na mu def uh, ca boobulee vidéo ak kaddu ya nga xamante ne ni daal dina ko fay yëkkati uh, tey si altine ji internet sénégalais yi dañoo rek yeewoo mer jëmale ko ci tiktokeuse bi di ay dara donte sax dañu ko doon commentéeral commentaire yu neex lool di koy apprécier waaye nag tey moom dañu xëy rek di koy dal dal yu métti lool ci réseaux sociaux yi ana ran la ba waral rek ko xamal mun nañoo ne 2020 bi mooy atu ba célébrité yi ki nga xamante ne nii nag moo di Adama nekkoon actrice ci série bi di kafe avec daal nay rek dégg alxayri loole yëpp bu yembee ñu toftal si tàggat yaram addu rek si lu ñeel football laata ñu koy tëjee ak mbirum làmb li moo ci gën a fës bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di la xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ni nii ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daaj dañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté vingt et carats Bahreïn ay rek euh, organisa ak tamit rek ay vingt et un carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté dix huit carats extra. Euh, super extra néonoro pomi euh, kawro biling biling jurodani ak rek versace ak i rek yeneen yu taaru lool ana ñu doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee wat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie jam jam de daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal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 la ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa illaa loo yitewoo di nga ko xam ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek si seen alal ci diir bu gàtt lool yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab alal waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool mbokk nuyu nañ leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu ñuy teewlu ci Dakar Buzz euh, mbas mi la ñuy doore xibaar yi comme ni ñu ko tàmm di defee bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàlloo wàllu wér gu yaram wi euh, tey junne ak ñeenti téeméer ak ñeenti doomi àddama la ñu testé téeméer ak ñaar fukk ak benn ya ñoo ca amee lii di coronavirus bi euh, si téeméer ak ñaar fukk ak benn yooyee juróom fukk ak ñaar yi dañu leen a wàll juróom benn fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire bu weesoo loolu ñeent fukk faj leen tey ba ñu wër ñaar fukk ak ne sonn nañu rek ba ñu nga sauvetage am na rek juróom benn ya nga xamante ne ni ñàkkaat nañu seen bakkan ci mbas mi dolleeku ci lim gu fi jotoon a ñàkk seen bakkan ba ñu amee nag suñu kaa bu njëkk ci bile feebar ba jamono jilee may waxee ak yéen lu toll si fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi àddama ñoo fi jot a amee rek lii di coronavirus bi si ñoom ñooñee nag fukki junne ak juróom-benn ak juróomi téeméer rek juróom-benn fukk ak ñaar nañ leen si ba ñu benn ñoo si jot a ñàkk seen bakkan jamono ji lee juróom-ñeenti téeméeri doomi aadama ak ñeenti fukk ak juróom ñoo tëdd rek ci bërëbu fajukaay yi yore bi feebar di coronavirus bi. xiif baa ngi bëgg a wër Sénégal gi yëpp ci ab entretien bu mu def waa journal bi di observateur Jean-Pierre Senghor secrétaire exécutif du conseil national de sécurité alimentaire daal dinay xam le ni euh, xiif gi laal na 516 562 doomi aadama euh, mu bokk ci 92 150 ca Matam soit rek 11 518 ménage ba loolu weesoo Jean-Pierre Senghor yokk ci ay kàddoom ni ci 45 département yu nekk Sénégal Euh, quinze ñoo ngi rek sous pression benn nekk en face de crise département yi nag di Salémata Birkelane Louga Koumpentoum Vélingara Ranérou Saraya ak Kanel ñoo ngi ñoom ci situation bu doy waar bu ñu ci deful dara nag li mu département yu crise sanitaire bi laal dina rekk am yokkute te li mu doomu aadama yu mu laal tamit dina weesu 777 000 bu ñu sukkandikoo euh, ci programme alimentaire mondial ma jubali ca Thiès àddu ci mbirum belge bi am juróom-ñetti fukki at ak juróom mi disparaîtron depuis fukki fan ak juróom soxna si di Christiane ci ab tool bu nekk ci wetu autoroute à péage bi si yoonu taset bi lañu ko mujjee gisee mu ñàkk bakkanam ba noppi ñu daal di ko fay suul néewam sax ñoo ngi fekk rek mu yàqu a ko faat du kenn ku dul borom këram di ab sénégalais bi nga xamante ne ni amagul sax juróom fukki at di wuyoo si turu ba MG Sarr ba ko takk xamante ne ni daal dina koy def si kanamu enquêteurs yi laata mu leen di won fa mu ko suul belge boobee nag Thiès googee la dëkkoon ak rek eh, ki nga xamante ne ni moo di borom këram ak wujjam eh, benn soxna si nga xamante ne dëkkandoo la daal dinay rek eh, xam leen ni soxna soosee di belge ba ñu fat alerté woon na ni rek dafa nekk en danger moom moomee Christian sax dafa tuuboon dugg ci diine l'islam tuddee rek boppam Aminata cambriolé nañu sax li nga xamante ne ni moo di néegam nga xamante ne fa la dëkk ak borom këram bu yàggul dara ay alalam yëpp ñu daal di koy sàcc mu jëloon rek benn dëkkandoowam di xaritam woo ko ngir mu ñëw xoola nañu def néegam boobe mbir mu doy moo am ca Ngadiaga benn ci fukk benn teenu gaz yu compagnie Fortisey di exploité moo fa takk jëppeet tax villageois yëpp jaaxle dal di génn ñoom ñëpp ca seen dëkkuwaay daw jubali ca route principale Mboro bi di xaarandi di safara si fay pompier yi gendarmerie ak tamit rek ay expertu Petrosen ñoo ngi fa woon ci usine ba ci fàttali gaz naturel u Sénégal bu ñu découvrir Ngadiaga américain bi di Fortisey moo koy exploité depuis atum 2001 bu ñu sukkandikoo si suñu source explosion bi mi ngi am si waxtu ba nga xamante ne ni ingénieur américain boobee yor bile entreprise mi ngi nekkoon di branché groupe électrogène bi nga xamante ne ni moo génnee étincelle ba jur fa jëye bi ingénieur bi nag jëlee na si gaañu gaañu yu garaaw lool ba ñu ko yóbbu hôpital bu ñu sukkandikoo ci maire bi di yi Ndiaye askanu Ngadiaga ak capitale sénégalaise gi di Dakar seen bakkan ñoo ngi si xottu gerte gannaaw rek bu ñu tëjul vanne yi catastrophe bi lee mën naa yegg si ba Dakar askan ba nag ak seen maire bi nga xamante ne ni interpellé nañu état lu dul benn yoon du ñaari yoon daal dinañuy yuuxuwaat wëllu si risque yeeg danger ya nga xamante ne ni ñoo ngi koy dund tribunal euh, grande instance bu Louga daal dinay teg ci ndoddu Dee Sall ñetti weeru kaso ferme ak alamaanu benn million ci suñuy koppar euh, ngir lu mu soodee diwlin bu tàng wujjëm di aawoom ñu naan ko A Ndiaye ba ñu taxawee ci kanamu attekat bi ñaadeel bi daal dinay xamle nag ci kanamu euh, attekat yooyu ne rek mi ngi rëccu lu mu soodee wujjëm bi laata muy xamle ni ñoom ñaar mësuñoo neexoo ndax wujjëm bi saa su ne da koy tuumaal wàllum njaaloo ba tax ñu ciy xeex saa su ne bi bee ko provoqué dóor doomam ba ñu xeexee nag ba noppi mu ne mu fekk ko rek ca buntu néegam ne ko ah, na man nga ko sekkal si noonu mu ne ba mu ko wonee gannaaw di dem nag eh, néegam maanaam di dellu la jël rek diwlin ba mu tegoon ca marmite ba daal di ko koy sotti ba mu noppee la aawam bu mu soode dal di jël moom it kàddu dal di xamle ni eh, doomu ñaareelam bi da doon yàq ravitaillement wu kër gi moo taxoon mu dóor ko wëññi ko ndax da koo jàppee comme doom nee na la ko ñaareel bi attaqué mu mën ko si seen xeex wa mu daal di koy rek waatal ni dina fayu si ëllëg sa nag nee na rek euh, ba mu jëlee si wa ndoxam di dem ca toilette ya la ko bettee rek ginnaaw euh, sotti ko diwlil bu tàng ba ñu daal koy évacuer centre de santé bu daaru musti bu ñu ko joxee li nga xamante ne ni moo di certificat médical laata muy porter plainte leneen comme ni ma leen ko junjee ci ndorteel li ay soxna dañuy faral di mbubboo woo ni dañoo wannu loot ngir teg xel seeni ay partenaire ba lekk ci ñoom koppar rawatina ci bu ñu nekkee ay góor yu am soxna wala yu am alal bu ñu sukkandikoo ci enquête bu ci critique def soxna yi dañu ciy dem sax bay provoquer ay avortement ci gàttal daal bépp astuce la ñuy rek jëfandikoo ngir gasal ndëgg sërëx góor ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy sekkal ci kaa yu ci ëpp lu leen di dugal ci li ni du lenn du xaalis rawatina eh, bu dee waa dafa am soxna wala xaalis eh, journal bi dina daal dinay tamit eh, xam leen ni rek benn pro dissimulation li ni mel daal dinay témoigner moom nag nee na saa su ne day am ci réfrigérateur am urinu soxna maanaam sawu ba jigéen sa nga xamante ne nii dafa wannu loot ngir rek test grossesse bi lépp di ay pexe ya nga xamante ne ni yenn soxna yi ñu ngi koy lal saa su ne ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz damay àddu jëmale ci ziyaara annuelle yu Medina baay bi mu demoon teewee cérémonie bi xalif général Medina Baye Serigne Maye Ibrahima Niass daal dinay plaider ngir ñu dellu ak doole ci mbéy mi ngir xeex yenn mbir yi comme lu ci mel ni ñàkk gi délinquance gi ak homosexualité bi ci kanamu taalibe mi nag la xalifa bi xam leen ni rek seen engagement ci diine gi amul faay ba tax na jot na ñu dellu ci suuf si def priorité. mbéy mi comme nu ko Baye Niass doon defee temps wam ba loolu weesoo xalif bi ne suuf saa ngi fi disponible na kon nañu béyi ngir sukkali suñu ay projet agricole ak industriel xalif bi nee na tamit bàyyi bàyyi na fi lu tollook ñeenti téeméeri hectare ca ba Niassène te am na yeneen suuf ca Kossy te dañu leen war a exploité seetkat bii di Selbé Ndom daal dinay àddu si mbirum borom ñaari tur yi Selbé nag maire ba futu la def jëmale si ñoom ne rek góor jigéen bu ñu jàpp nañu dagg awram ci digg bi tapit sànni fële eh, ba loolu weesoo selbe ne rek Sénégal gi eh, ku ko moytuwul eh, si juma yeeg jàkka yi ak rek ñuy woote naan ay yónnent lañu moom selbe dina leen toroxal ndax ñooñee amuñu jom mu xamle ko. politique conseil économique social et environnemental jamono ji président wam bu bees bi di Idrissa Seck lay wër bu ñu sukkandikoo si xibaar yu bàyyeekoo Walf Quotidien Idrissa Seck def na ay bés kenn xamul fa mu nekk ak calan la nekk bu ñu sukkandikoo nag si ay jege ñaaleem leaderu parti réew mi disponible la tey day noppalu waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn source yi nga xamante ne ni moom la journal bi firndeel njiital conseil économique social et environnemental fatigma bu métti moo ko jàpp ba daal di koy tëral def na ay bés. maire bu Guédiawaye Aliou Sall kontaanul ci yenn critique yi mu waral ba tax mu ne dafa métti te du ko nëbb moom nag nee na dëgg la ni frère njiitu réew mi la warul doon li war a wala doon la délit de parenté la te rek da koy frustré ba loolu weesoo nag Aliou ne àndul ci loolu waaye bu dee fal la poste bi wala bee teewu ko nelaw lu la nag lu ñuy naan da doon sàkku ñaan ngir frère am bi di Macky Sall ngir mu am troisième mandat Aliou Sall nee rek nañu dem var laata leeral ni dafa wax sëriñ bi ne yaakaar naa ni di nga ma ñaanal ngir ñaareelu mandat ñetteelu mandat wala sax lu ko ëpp gaa yi ne déedéet amul deuxième mandat waa amul it troisième mandat maire ngay doon ba faw Aliou Sall ne nag mu ne attention bu ñu fi wax lu bëri troisième mandat ndax taskatu xabaar yaa ngi fi nit ñi dem di nettali n'importe quoi si noo ne maire Géejawaay bi ne nag du jël risque di àddu si ay question ya nga xamante nii dañoo décider bañ see wax ci seen parti bi. bienvenue bienvenue mesdames messieurs amis chers internautes de Dakar Buzz yéen ñi nga xam da ngeen a yor petite et moyenne entreprise wala yor boutique boo xam ne da ngeen a bëgg a seen produit wala seen service alors. une toute nouvelle chose une chose extraordinaire loo xam ne dafa bees tàq woote leen ci numéro bii ma leen di jox Dakar Buzz day def déplacement fekk leen fa ngeen nekk yéen boutique yi fësal seen njaay wala fësal seen produit wala seen service à cinquante mille francs bien sûr j'ai bien dit cinquante mille francs waaye yéen waa Dakar Buzz xanaa dañoo dof yéen waaw waaw jàppal huit cent mille abonnés sur YouTube un million d'abonnés sur Instagram un million et quelques d'abonnés sur Facebook nga dem YouTube. Instagram Facebook ci cinquante mille francs waaye yéen lii neex na de lii lañ leen di jox comme cadeau de Noël ci mois de décembre bi ba janvier à cinquante mille francs gaaw leen balaa muy leneen ba tey animatrice bii di Sofia mi ngi wéy di déraper gannaaw émission wam beeg Lirou Diane ak ousin Keita ba mu génn di jéggalu tey jooy jooy yu métti lool Sofia daal dinay defaat rek beneen vidéo di si lëmbal tey xamle rek ni dafa saf suukar saf xorom jàll ba si Dakar di xaar poobar ak kaane ba loolu weesoo nag Sofia ne day lëmbal léppam di lëmbal laata muy naan ko bëgg gis bëgg xam ay taatu Sofia ak ay ancham nan lañu toll na xippi rek ay gëttam di xool di vidéo ba nga xamante ne ni daal dinay choqué waat ñii di internet yi tey si altine ji internet sénégalais yi dañoo yeewoo mer jëmale ko ci Fa dara moom nag tiktokeuse bi dal nañu ko dal yu métti lool ci réseaux sociaux yi rawatina ci Facebook ci ay groupe comme Galsen Fun publication yu ñu def ci moom am na ay junne junne commentaire moom nag ay Aidara mën nañoo ni dafa def lu ñuy wax erreur de communication ba ñu ko dalalee ca 2STV si kanamu sénégalais yi la ay dara xam leen ni amul temps wu lire yu ñuy def ci vidéo wam yi ak application wam yi dax si dolli soxalu ko ba loolu weesoo fa ay dara ne nag lu si ëpp manager am mooy lire commentaire yi laata mu koy rendre compte euh, kàddoom yooyee moo merloo internet yi ba tax rek ñu xëyee ko yëkk ko lu mel ni xemee ci seen commentaire yi autorité yi yombal lu ñu lenn si restriction yu ñu jël ngir freiner law bu coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal euh, ci opération yu police di def def na fukki fan ca almadi gendarmerie daal dinay ci benn boîte de nuit bu ñuy wax chez Jaraaf bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu ñu ci jot ci guddi ba dibeer ñaar fukki fan jàpp altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu nekk ci ay booru une heure du matin boîte de nuit chez Jaraaf bu nekk Almadi dafa nekkoon rek ci digg soirée dansante laata gendarme yi di fay wàcc ci noonu daal dinañuy sax teg loxo borom boîte ba ak léegi lim gu takkul lool ci ña fa nekkoon li ni mel nag nee ñu sax yeggee nañu ko di autorité administrative administrative yi xibaar bu neex daal nay tàbbi ci beneen célébrité Adama Style di actrice nekkoon ci série bi di un café avec daal dinay rek am boroom kër ni ki démb ci dibeer bi moom nag fi mu ne nii madame Diop lay wuyoo équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi koy souhaiter heure ménage moom moomee rek di Adama turam dëgg di Adja ak borom këram di monsieur Diop. noonu lay xuusee ci tàggat yaram doore kooka football Sadio Mané kontaanul benn yoon samedi ba ñuy dajeek Crystal Palace ba ñu joué nag lu yem moo ko juróom fukki simili ak juróom-ñaar ak benn buy wak benn passe décisive ba mu amal lañu ko dal di remplacer moom international sénégalais bi ak Mohamed Salah li ni mel nag doon lu métti doomu Bambali bi gannaaw ba ñu amee ndam nag ñoom ret si ay juróom ak juróom-ñaari buy ci dara entraîneur Liverpool bi di Klopp daal dinay réagir ci attitude Sadio Mané bu kontaanul euh, ci changement wom bi Klopp nag nee na rek mënuñoo def lépp euh, si noonee mu ne Sadio Mané nit rek la te ni mu réagir après rencontre bi noonu la laata muy naan euh, tout va bien mu gaañu gaañu gaañu gu métti lool ci oom ci ba mu nekkeek nekkee PAOK Salonique bu ko FC Barcelone al latéral droit bi di Moussa Wagué ay atam toll ci ñaar fukk ak ñaar du joué waate ci saison bi waaye dina mën a wëyandi carrière am wuuteeg lu ñu ci doon xel ñaar gannaaw ba ñu ko opéré ba noppi ak succès d'une réparation docteur Ramon Cugat nag moo ko opéré médecin FC Barcelone yi supervisé ko lu ñeel euh, diir bu muy absenté ñu ngi ko. xayma si lu tolloog juróom-ñeenti weer latéral sénégalais bi nag gannaaw message de soutien yi mu jot daal dinay fësal ab bataaxal ci Instagram di jaajëfal ñëpp tey xam le ni mi ngi feex bu baax a baax laataa muy naan dina jël temps nag waaye dina ñëwaat ak xarañte bu jéggi dayoo ba loolu weesoo la mi ngi jaajëfal service médicaux yu PAOK ak Barça ay coéquipier am ak fansam yëpp ngir seen suwe yi ak tamit seeni ay soutien gannaaw gaañu gaañoom bile làmb ball Gaye 2 mi ngi firndeel ni ko mbaawam ak kii di Bombardier lu ko ñor la ah, moom moomee doomu Double Less bi mi ngi rey boppam ci entrainement yi jamono ji may waxee ak yéen lépp ah, ngir am ndawam ci kaw Bombardier li ni mel nag ñu ngi ko nemmeeku ah, ci vidéo mu fasal nekk ci rek di amal ay séance d'entraînement wam Euh, combat si diggante Eumeu seen ak Lac 2 laa koy tëjee bu weesoo clashante boo am si diggante ñaari mbër yi am na beneen problème bu gën a complexe bu leen di wuutale loolee nag du leen lu dul mbirum sëriñ euh, bu ñu sukkandikoo ci mbër mii di cinquante cent ay kàddu yu tegginewul ci kanamu benn sëriñ la kenn si ñoom yëkkati jëmale ko si keneen ka ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci moom Eumeu Sène daa yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci Lac de si seen sëriñ bu ñu bokk tax rek ba Lac 2 sax mënatul a joindre seen sëriñ boobee